maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa jaspora di jiital nuyu bi sunu kilifa diine yeeg aada yi di feddali kóllëre bi eh, di leen di wax ne man eh, docteur Rose Wardini candidate élection présidentielle 2024 depuis bi nga xamee ne eh, filtre parrainage bi jàll na ba nga xam ne nekk nañ candidat coow li dafa jugoon ci sunu wàllu parrainage ñëpp di naan kii fan la jaar ba am parrainage kii fu mu jëlee parenage dama leen bëggoon a fàttali ne docteur Rose Wardini mi nekk seen kanam dafa juddoo Sénégal màggee Sénégal am fi lépp depuis ñaar fukki at ak juróom mu nekk ci gox-goxaan yi di taxawu Sénégalais yi di liggéey pour Sénégalais yi te mësuta am benn poste gouvernement wala benn post boo xam ne war na mun a tax ñuy wax ñàkkam ak alalam la jël jox yi yëpp di ci liggéey depuis ñaar fukki at ak juróom donc kooku mel noonu defe naa parrainage war a ko tër coow li bëri woon na torop nag ñuy waxati beneen coow ñëwati muy affaire double nationalité loolu nag duma ci xuus bu baax parce que la ma waroon def yëpp def naa ko te violé wu ma benn charte constitution ndax la ma waroon def ba ma koy def def naa ko déposé ko fa ma ko war a def defe naa ne fii ak ay diir yu gàtt da ngeen ci am lu leer ñun nag Sénégal nouveau dañoo yàgg xeex ci li nga xam ne mooy paix ak stabilité sunu réew mi ndegam coow li bëri na nag bëri na torop ñun dañoo jël benn dogal mooy gannaaw si tey si ma génnee suma candidature ci élection yi ndax jàmm lañu bëgg ak élection yoo xam ne dafa lalu ci jàmm ku war a gañe gañe ñu jàppale ko mu jiite réew mi ñu liggéey suñu Sénégal ndax mérité wuñ ñin vraiment fitna fitna mérité wuñ ko may sant nag bu baax ñëpp ñi nga xam ne ànd nañoo man di liggéey di jéggalu nag parce lii dañ ko waroon a def ndax suñu intérêt dañ koy jël teg fële jiital intére réew mi bu dee coow dafa nar a am ma teggi suma intérêt teg ko ne le jiital intérêt réew mi élection yi am ci jàmm ak salaam coow li fay ki war a gañe gañe te élection yi nag ñu fexe ba ñu def ko fi yag le 2 avril ndax nit ñi mun a am jàmm dem ci ay élection jàmm ki war a gañe gañe ñu jàppale ko maa ngi leen di sant di leen di gërëm di ñaan yàlla jàmm wàcc ci senegal di ñaan yàlla yàlla musal ñu ci fitna jërëjëf asalaamaaleykum